الحمد لله الذي تقدس في غيب الهاهوت متجلي بأسمائه وصفاته في حضرة اللاهوت وبأسراره في حضرة الجبروت وبأنواره في حضرة الملكوت وبالأجرام المتشكلات والصور في حضرة الناسوت الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناها وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ولا شبيه ولا مشاكل ولا معاند ولا صاحبة ولا ولد ولا منفصل عنه ولا متصل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 الله أكبر الله أكبر كبيرا كلما تعاقبت الليالي والأيام وعاقب الفطر الصيام وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسله رحمة لكافة الأنام ومحللا للحلال ومحرما للحرام وموطدا للإسلام من فرض في نهار رمضان الصيام وسن في لياليه التراويح والقيام وعلى آله وصحبه الفخام أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أصلح الله حالنا وحالكم وما أهلنا وما أهلكم أن يومنا هذا يوم شأنه عند مولانا عظيم حيث ختم به الشهر الكريم وافتتح به شهور حج بيته الحريم وجعله يوم عيد وزينة وزينة وسرور وعظم فيه للعامل الأجور فهو يوم فهو يوم تسبيح وتحميد وتهليل وتكبير الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فبادروا إلى فعل مأموراته وأخرجوا صدقة الفطر وجوبا هي ساع عن كل مسلم ذكر أو أنثى حر أو عبد كبير أو صغير يخرج الشخص عن يخرج الشخص عن نفسه وعمن تلزمه مؤونته بقرابة أو زوجية أو رق وتخرج من جل عيش ذلك البلد من قمح أو شعير أو سلت أو أرز أو دخن أو ذرة عن طيب نفس وانشراح قلب فذلك هو الأدب ويندب التكبير حين, خروج حين الخروج للصلاة إلى أن يأتي الإمام أو يقوم للصلاة ولفظه الله أكبر الله أكبر الله أكبر ومن جاء من طريق فليرجع من طريق أخرى فذلك أوفر للأجر وقدر الساعة أربعة أمداد بمده عليه الصلاة والسلام فمن لم يقف على حقيقة قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم فليأخذ أربع حفنات بحفنة رجل متوسط ليست بمبسوطة ولا بالمقبوضة فذلك هو الصاع ووقت إخراجها من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ويعطاها الفقير يومه ولا تسقط بمضي زمنها في حق الموسر وتسقط في حق المعسر ويسن إظهار ويسن إظهار زينة بالطيب والثياب ولو لم يخرج ولا يترك زهدا وتقشفا مع القدرة عليه والمشي إلى المصلى ندبه متفق عليه والركوب غير مكروه لأنه زينة وهذا يومها وكان عليه الصلاة والسلام لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا وينبغي ترك المصلى مكشوفا لا بناء فيه وإن كان بنيان فيصلى خارجه في البراح فهو الأفضل والأولى بل هو المتعين اليوم وقال عليه الصلاة والسلام شهر رمضان معلق بين السماء والأرض ولا يرفع إلا بزكاة الفطر وعنه صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع في العيدين إلى الأرض فابرزوا من المنازل تلحقكم الرحمة ولا بأس بخروج النساء يشهدن الخير وكان عليه الصلاة والسلام يخرج إلى المص... يخرج إلى المصلى العواتق والأبكار والحيض وزوات الخدور لما هنالك من الخيرات وهن معتزلات ويندب إخراج الصدقة في مثل هذا اليوم فقد كان عليه الصلاة والسلام يقول يا نساء المؤمنات لا تحقرن أحدكن إحداكن لجارتها ولو كرة عشات محرقا وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة وقال عليه الصلاة والسلام كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوا وبشر المؤمنين واذكروا الله كثيرا وقال جل من قائل فاذكروني أذكركم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 muy motali wéru koor di ubbi xaj kon bis bi bés bu am ngeenel la ndax boole na tëj wéru koor ak ubbi xaj def na ko muy bési eid bési taarlu bési kontan bés la bo xamne yàlla daf ci magal yoli aji jëf yow bés bés la bo xamne ne bési subhaanallahi la kon ñu wax subhaanallah bési alhamdulillahi la ñu wax alhamdulillah besi la ilaha illallah la ñi wax la ilaha illallah besi allahu akbar ñi wax allahu akbar mu ne na ngeen gawantu jëm ci jëf ndigal yi ndax ndigal yi lo ci deg rek boko jëfé ci saasi rek nga bok ci ñooñam na ngeen genné mu dem koor te lu war la mu dem koor nak saa lay nek war bepp julit bu goor wala bu jigen gor wala momel ndaw wala mag nit ki moo koy génneel boppam génneel ko képp koo xam ne dundam moom la war ci jege ñaale wala ci dencaale wala ci moomaale ci moomeel dañ koy génnee nag mu jugee ci li gën a bari ci la dëkk ba di dundee li mel ni fariñ lu mel ni dugub mboqu bele ceeb yooyu yëpp li nga xam ne dëkk ba dañ koy dundee mën nañ ko cee génnee boo koy génnee danga koy génnee en tib nafsin fekk yaa ngi ci euh, kontaan sa xol ci ubbeeku loolu moom mooy teggin sopp nañ di wax allahu akbar ci bés bi waxtu bu ilimaan di génnee ba ba ilimaan bi di ñëwee ci jumaa ji wala ba ñu taxawalee julli baat bi ñuy wax nag allahu akbar la ñuy wax allahu akbar mu nekk dikkee ci yoon nanga delloo ci beneen yoon loolu moo gën a mat ngir yool bi ndax malaaka yi ci yoon wi seedeel la yi nekk ci yoon wele seedeel la wala ñu ne ngir feeñal màggaay lislaam mu ne saa nag bi nga xam ne mooy muddam koor nan lay toll ñeneenti mudd la ci muddam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne ku xamut e, muddam yonentu bi sallallahu alayhi wa sallama na jël nguufi ñeenti loxo ñeenti nguufin yoo xam ne borom loxo boo xam ne loxoom Ah, ah, jeggiwu dayo ci tuuti jeggiwu dayo ci guddu te du ko tàllal ëpp du ko du ko tàllal du ko lem saa nag eh, mooy ñaari kilo ak libar konte nañ ko loolu mu nekk ñaari kilo ak ak ak libar am ñu ne de deux mille ñaar téeméeri ñaar ñaari junney garaam ak juróom benn téeméer waxtu génnee ko nag mooy ba xajar fajar xare ca bésab ayit bi niki tay ba fajar ba bi jant bi di fenkee de ba bi fajar xare ba fi jant di sooye de mu dem koor nag miskin lañ koy jox ca bés ba lañ koy joxe du wàcc aji man donte jabtena ku ko man joxe woo ko bu jant bi sooyee sax terewut ba léegi mu ngi la war ko nekk ci jafe-jafe nag ba manoo ko ba waxtu génne ko paase muy jant bi soo tey kooku wàcc na la de sunnaal nañ ci bésab tey bi taarlu ak gëttu ak sol ay yére yu yu rafet donte ki nga xam ne moom lay def génnu dem ci julleekaay bi ndax ku am ngantal julli ni ki jigéen ñu am ngantal julli sax yonent bi nee na na ñëw ci julleekaay yi waaye nañ beru góor ñi mu ne kenn du bàyyi taarlu ci bés bi ngir ngir wañsu ngir sufiyankew fekk yow attan nga ko ngir dëddu àddina mu ne dox jëm ci juleekaay bi soppam luñ luñ dëppoo waaye war war sa daaba wala ndaamara gu do duur luñ sip ndax bési taaru la te mune ndax loolu war ci taaru la bii mooy béseb taaru de mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ba mu lekkee ay tàndarma de te daf ko daan lekk mu nekk lu tool loolu pour xamale ne xëy na te oorut mu ne xel na ci aji julli xel na ci fi ñuy jullee it ñu ko mu nekk barab bu ubbeeku comme barab bu mel nii de tabaxuñ ko mu ne doonte dafa nekk ci tabax dangeen ngeen am juma masalan julli fa fajar ba pare bugg a julli it sopp nañ ñi génn ba ca biti jullee ko fa moom moo gën a xeey loolu sax mooy li gën a rafet mu ne mu ne yontu bi sallallahu ne weeru koor dañ koo xaj diggante asamaan ak suuf duñ ko yëkkati nag lu may ci joxe mu muudam koor de maanaam ku war a joxe muudam koor am ko joxe goo ko sa weeru koor daal ni ko aj ba nga koy joxe ku ko amul nag kooku wàcc na ko tukkee na jugee ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla dafay yurdu ñooñ suuf ci bési ñaari iid yi na ngeen génn kër yi ngir yormaande yàlla jot leen bàyyi ne xam nañ ne yàlla amut barab bu nekkut waaye béseb tey bii dafa jagleel yermaande way julli ñi nga xam ne génn nañ di gaarlu yermande yàlla jooju tabaraka wa taala bàyyi na amut xaay pour jigéen ñi ñi génn fekkee xiw yi nga xam ne moom la yàlla di mayee ci bési tay bi yurru jaam yi mu ne yonent bi sallallahu alayhi daf daan génnee jigéen ñi nga xam ne euh, yu am askan yi ak ba ci xéeg yi maanaam jànq ji ak ñi nga xam ne dañoo amee mbërëg sax nga xam ne bu ñëwee duñ julli ak ñi nga xam ne ñi nga xam ne ñu ngi ci kër yi duñ génn ci kër yi ñooñu ñëpp yonent bi daf leen daan génnee ci bési tay bi pour ñu ñëw gaarlu xiw yi nga xam ne nii moom mi fi moom moo fi am mu ne nag waaye jigéen ñi bu ñëwee nañ beru jotaayi góor ñi sopp nañ génnee sarax ci bés bu mel ni bésab tay bi wax nañ ne sarax ci bésab tay bi yoolam juróom-ñaar fukki yoon lay nekk de yonent bi sallallahu alayhi wa mu ne daf daan wax ne yéen jigéen way gëm ñi bu kenn ci xeebal kenn ci yéen bu mu xeebal dëkkandooram donte xeel buñ lakk la de mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa ba tey wax na ne na ngeen fekk seen bopp safara donte ci genn wàllab tàn euh, tàndarma la de mu ne doonte tim ci baat bu teey la seetal safara donte benn genn wàlli tàndarma booy joxe nga xeetal safara donte baat bu tey booy wax la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wax na ne ku nekk yaa ngi ci sa ker sarax maanaam bi si ba yàlla fasale diggante jaam yi ba atte jaam yi na ngeen yàlla wax na ne da ngeen dénkante dëgg na ngeen dénkante muñ na ngeen ragal yàlla xam leen ne da ngeen dajeeg seen borom te na ngeen bégal way gëm yi bés bi ñuy dajeeg seen borom yàlla nee na tudd leen yàlla tudd lu bëri yàlla wax na ba tey moom yàlla mu màgg moomu nee na tudd leen ma ma tudd leen allahuma salli ala sayidina muhammadin wa sallim allahu akbar allahu akbar allahu akbar asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi delloo kalima bi al xalifa xaadimu umma cheikh moolana cheikh Mouhamad al Maahi Ibrahima Niass ñu ngi ñaan yàlla di yàlla nangu koor gi nangul jullit ñëpp ñi ngi déglu ay ñaanam di wax amin ci ñaan yëpp ñi ngi ñaanal imaam Cheikh Ahmed Tidiane sise yàlla may ko wér de loosi ko ñi ngi ñaanal ñaan ci sëriñ bi mu ñaanal ko yàlla ñaanal eh, suñ mbok yële ci Soudan ñi ngi ñaan sëriñ bi mu ñaanal leen yàlla xam na ne mu koy def allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim Cheikh marhaba ikram ñi ci ginnaaw def leen nag bala ñoo dal ci kaw ñe eh. du ñun de père ñi ci ginnaaw ñoo ñuy buuf foofu ياسر mu ngi foofu si booy bi baaba نحيي ونهنئ إخواننا الذين حضروا معنا هذا اليوم المبارك من موريتانيا من نيجيريا من نيجر من كل بقاع افريقيا حضروا معنا في هذه الليله المباركه استنزالا لرحمه الله تبارك وتعالى علينا وشكرا له على نعمته الكبرى الذي نعمته الكبرى التي بها استطعنا أن نقوم بواجبات هذا الشعب صياما وقياما وقراءة وذكرا وصدقة ومواصلة في الله تبارك وتعالى كل ذلك ليس إلا طلبا لرضوانه وتثبيتا لعبوديتنا له تبارك وتعالى ف... ف... اجتماعنا ليس إلا اجتماع شكر ليس اجتماع ليس إلا اجتماع حمد لله تبارك وتعالى واجتماعا وشكرا لسلفنا الصالحين الذين وضعونا على هذا النهج القويم نهج محبة الله نهج تسابق في الخيرات نهج طلب رضا الله تبارك وتعالى في كل أعمالنا الصالح في كل أعمالنا الظاهرة والباطنة لأن الإنسان لا يملك في حقيقته إلا التضرع وتوجه إلى الله تبارك وتعالى ونسأل الله تبارك وتعالى الذي من علينا بالقيام بواجبات هذا الشهر أن يتقبله منا أن يتقبله منا وأن يزيدنا من نعمه وأفضاله ما لا يعد ولا يحصى بحول الله تبارك بحوله تبارك وتعالى nuyu mbokk yi yëpp. mbokk yi sëriñ bi de mu ngi nuyu mbokk yi yëpp. maa ngi ñu ngi ndokkeel suñu bopp ñun ñëpp. ñu ngi ndokkeel suñu bopp ñun ñëpp. ci xéewal gi nga xam ne yàlla may nañu ko. ci xéewal gii nga xam ne yàlla may nañu ko tey. yàlla moo ñu ko tàggatal. yàlla moo ñu ko tàggatal. ñu suñu ba suñu bakkan tàggatal ñu suñu bopp. tàggatal ci suñuy bakkan. tàggatal ci suñuy bakkan. bañ mën a taxawee. bañ mën a taxawee. farata yi nga xam ne teg na ko ci suñ kaw. farata yi nga xam ne teg na ko ci suñu kaw. mu bokk ci weeru koor wi ñu génne. mu bokk ci weeru koor wii ñu génn tey. te koor ku nekk yéen ñëpp xam ngeen ngëneel yi ci yàlla wax. weeri koor ku nekk ci ñun yéen ñëpp xam ngeen li ci yàlla wax. loolu ci ñu ko taxawee. loolu yàlla wax yëpp. loolu yàlla wax yëpp. jikko yi nga xam ne taxawee nañ ko. jikko yi nga xam ne taxawee nañ ko. digg ko. jigéen yi nga xam ne. moom lañ moom lañu ci yàlla télé. lépp ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla dëggalal. lépp ñu ngi ñaan yàlla. yàlla nañu ko yàlla dëggalal. Sénégal a ngi ne alhamdulilah rabil alamin alamin Sénégal yëpp góorgóorlu nañ ci koor gi. Sénégal yëpp góorgóorlu nañ ci koor gi jooxe ko. def ko ngir gëm yàlla. def ko ngir gëm yàlla. def ko itam ngir gëm ne la nekk ci yàlla moo gën di nekk ci ñun. def ko ngir itam ngëneel ya nekk ci yàlla moo gën yii nekk ci ñun. yal nañu ci yàlla àggale. nañu ci yàlla àggale yaa rabbi. ñaanal bu baax a baax mbokk yi yëpp. sëriñ bi ne mu ngi ñaanal bu baax a baax mbokk yi yëpp. ñaanal leen. ne mu ngi leen di ñaanal. yal na yàlla yokk ndimbalam ci ñun. yal na yàlla yokk ndimbalam ci ñun yaa rabbi. yal na yàlla yokk wërsëg ci ñun. yal na yàlla yokk wërsëg ci ñun yaa rabbi. yal na yàlla may ñu wér. yal na yàlla may ñu wër yaa rabbi. yal na yàlla may ñu tal. yal na yàlla may ñu tal. ba li ñu yàlla sant yëpp. ba li ñu yàlla sant lépp. ñu mën ko taxawee taxawaay boo xam ne. ñu mën ko taxawee taxawaay boo xam ne. taxawaay bu jub la. taxawaay bu jub la. comme ni ñu góorgóorloo ci suñu weeru koor wi. comme ni ñu góorgóorloo ci suñu weeru koor wi ba màngu ko. jeexal ko ci alxuraan. jeexal ko ci alxuraan. jeexal ko ci julli. jeexal ko ci julli. jeexal ko ci sikkar. jeexal ko ci sikkar. jeexal ko ci saraxe. jeexal ko ci saraxe. jokkulante jokkulante nam gën a yéwénee. di jokkulante ci suñ biir ca nam gën a yéwénee. loolu yëpp loolu yëpp. loolu yëpp. mbaaxu yàlla la ak ndimbalu yàlla la mbaaxal yàlla la ak ndimbalal yàlla la ci jaam bi ci yàlla ak ci yiw yëpp yàlla nañu ko bindal li ci yàlla xaj de ci yiw yëpp yàlla nañu ko bindal yaara bi ñun ñii ñun ñii ak suñ njaboot yëpp suñ njaboot yëpp yal na leen yàlla defal loolu yal na leen yàlla defal loolu yal na leen yàlla sàmmal loolu yal na leen yàlla sàmm yaara bi ñu am beneen ñu am leneen loo xam itam ñu am leneen loo xam ne itam. dëgg dëgg ñun ñëpp war nañ koo bégee war nañ koo kontaanee. dëgg dëgg ñun ñëpp war nañ koo bégee te war nañ cee kontaanee. suma waxtaan diggante imaam Cheikh Cissé. sëriñ bi ne waxtaanam ci ak digganteem ak imaam Cheikh ti Ahmed Tidiane Cissé. ak Mouhamad Cissé. ak imaam Mouhamad Cissé. ak Mahi Cissé. ak imaam Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé. ci mbiru jumaa ji. ci mbiru jumaa ji. ak ci mbiru jiite yi. ak ci mbiri jiite yi. cheikh euh, Mouhamad Cissé. cheikh Mouhamad Cissé. li def na ko. li mën lépp def na ko. yëg na ne jeex na. fi ne kat. moom yëg na ne kattanam na kattanam jeex na. bon bëgg na ku koy ku koy dimbale. bon bëgg na ku koy dimbale. mu gis ne. mu gis ne. Mahi Cissé. imaam cheikh Mouhamadul Mahi Cissé. mën naa taxawee loolu. mën naa taxawee loolu. ñu def ko imaam. ñu def ko imaam. ci ajuma yi. ci ajjuma yi ñu def ko imaam ñu def ko imaam ci ñaari iid yi ci ñaari iid yi iidul fitri ak iidul adha iidul fitri iidul fitri ak iidul adha ak iidul adha tabaski tabaski ak ak ak tabaski ak tabaski loolu yëpp loolu yëpp liñ ci jublu yëpp ak liñ ci bëgg liñ ci jublu lépp ak liñ ci bëgg mooy continuer suñ tabaxi maam yeeg bàyyi ci nit ñi mooy continuer suñ tabaxi maam yeeg bàyyi ci nit ñi. langaamu ci seen diine. langaamu ci seen diine. langaamu ci seen ay mbaax yi nga xam ne xam nañ ko. langaamu ci seen ay mbaax yi nga xam ne xam nañ ko. mooy mbaax yi jàng. te mooy mbaax yi jàng. mbaax jàngale. mooy mbaax yi jàngale. mbaax mooy mbaax yi taxawee diine. mooy mbaax yi jottali nit ñi diine. mooy mbaax yi jottali nit ñi diine ji. ci kaw xam-xam. ci kaw xam kam ci kaw sàmmanteeg yàlla mi nga xam ne moom ngay waxal ci kaw sàmmanteeg yàlla bi nga xam ne moom ngay waxal moom nga wax ne moom ngay liggéeyal moom nga wax ne moom ngay liggéeyal kon loolu kon loolu ku dégg imaam ku dégg imaam ci kontaan ci bésu tey bi ci bésu tey bii sa xol sedd na sa bés sa قول سيدنا نخمنا الحمد لله رب العالمين نخمنا الحمد لله رب العالمين امام يان فرك امام يان فرك كو تيل رك جوخ سامورم كو تيل رك جوخ سامورم تا كو نيو رك كو نيو رك داف لو خامني تا كو نيو رك داف لو خامني نين ني دين خامني كي لي ني كو تان موم نين ني دين خامني كي لي ني كو تان موتي نكو سك تا تخاوي نكو يتام تا تخاوي نكو يتام ñaanal ma xisise ko sëriñ bi la ñu ngi ñaanal imam Cheikh Mouhamadul Mahi Cissé. yàlla yàlla ko yàlla yokk ko dëgër. yàlla ko yàlla yokkoon dëgër laa yaara bi. yokk ko xam-xam. yàlla yàlla ko xam-xam yaara bi. ko ubbeeku. yàlla ko ubbee ubbeeku yaara ne liggéeyalul kenn ku dul yàlla rek. boo xam ne liggéeyalul kenn ku mooy yàlla rek. ci jaamam yi. ci jaamam yi. rek lay loolu rek lay sàkku. ngërmande yàlla. ngërmande yàlla. ak loolu rek lay sàkku. loolu rek lay sàkku fu mu toll. yàlla na ko yàlla defal. yàlla na ko ko yàlla defal yaara bi. liggéey pour diine. liggéey pour diine. yomb na jafe na. yomb na waaye jafe na it. waaye jafe-jafe bi. waaye jafe-jafe bi. nga nga gëm ci sa xol. nga gëm ci sa xol. jëflante wu ma kenn ku dul yàlla. ne jëflante wu ma kenn ku dul yàlla. yàlla ngi nii teew ak man. yàlla ngi nii teew ak man. gis mu ngi may dégg mu ngi may xam. mu ngi may gis mu ngi may dégg mu ngi may xam. li may wax li may wax jëmee ko ci jaami ngir moom. li may wax lépp jëmale ko ci jaami ngir moom yàlla. nu mel ci sama xol. ni mel ci sama xol. yàlla xam na ko. yàlla xam na ko. boo dëggoo yàlla xam na ko. boo dëggoo yàlla xam na ko. booy naxe itam yàlla xam na ko. booy naxe itam xam na ko. te nee na lu nekk nag am naa payam. te nee na jëf ju nekk nag am naa payam. yàlla ñu fay lu baax ñun. yal nañu fay lu baax ñun. yal nañu dimbale ci lu baax. yal dimbale ci lu baax yaa rabi. Sénégal yëpp ànd nañ koor comme ni ma ko waxe Sénégal yëpp ànd nañ. màndu koor gi comme ni ko sëriñ bi waxee. sàkku ngërmande yàlla. ngir sàkku ngërmande yàlla. boo amee ci mujj koor gi ñaari bés. amee ci mujj gi ñaari bés. loolu yëpp mu ngi dellu ci seen itte. loolu yëpp mu ngi dellu ci seen itte. nuñ déggee xam-xam. nuñ déggee xam-xam. lu leen xam-xam jox ba mu doy ci seen xol rek loolu la ñuy topp. lu leen xam jox ba mu doy ci seen xol bi rek. loola la ñuy topp. ñu toppee nañ ñii toppee nañ ñii. ñii toppee nañ nii kuréel gii toppee nañ nii. waaye ñaari kuréel yëpp yàlla rek lañuy ñuy sàkku. waaye ñaari kuréel yëpp yàlla rek la ñuy sàkku. loolu yëpp itam. loolu yëpp itam. barke bi ci bàyyeekoo. barke bi ci bàyyeekoo. Sénégal rek lay wàcc. Sénégal rek lay wàcc. yal nañu ko yàlla defal. yal nañu ko yàlla defal yaara bi. utee gis-gis wàññiwut dara. utee gis-gis. wàññiwut dara. wàññiwut wàññiwut mbokkoo. wàññiwut mbokkoo. wàññiwut xaritoo. wàññiwut xaritoo. wàcciwut àndoo. wàññiwut àndoo. gis-gis bu utee rek la. gis-gis bu utee rek la. mën tëjaat diggante nit ñi. mënta jaar ci diggante nit ak moroomam. bañ bañ bañ a jokkalante lu baax. bañ a jokkalante lu baax. bañ bañ a jokkalante lu baax. bañ a jokkalante lu baax. jokkalante lu baax moom la yàlla sant. jokkalante lu baax moom lañu yàlla sant. yal nañu yàlla dimbale ñu ñu gàcc suñu bopp. yal nañu yàlla dimbale ñu gàcc suñu bopp. waxtu wu nekk rek ñu mën koo taxawee taxawaay boo xam ne. boobu waxtu ñu mën ko taxawee taxawaay boo xam ne. yàlla dina ko nangu. yàlla dina ko nangu. gërëm ñu ci. gërëm ñu ci it. yal nañu yàlla dimbale. yal nañu yàlla dimbale yaa rabbi. yal na yàlla dimbale Sénégal. yal na yàlla dimbale Sénégal yaa rabbi. yal na yàlla taxawu Sénégal. yal na yàlla taxawu Sénégal. yal nañu yàlla sàmmal Sénégal. yal nañu yàlla sàmmal Sénégal. sàmmal ñu suñuy autorité. sàmmal ñu suñuy autorité yi. ndax ñoom. ndax ñoom. ñu ngi sonn bu baax a baax. ñu ngi sonn bu baax a baax. ndax ñun. ndax ñun. ndax ñu am jàmm. ndax ñu am jàmm. ndax ñu mën a nelaw. ndax ñu mën a nelaw. ndax ñu mën a liggéey. ngir ñu mën a liggéey. ndax ñu mën a jàng. ndax ñu mën a jàng. ndax ku nekk la nga tànn pour def ko. ndax ku nekk li nga tànn pour def ko. nga am waxtu woo ko defee. nga mën a am waxtu woo ko defee. nga mën a am euh, jikko joo ko defee. nga mën a am jikko joo ko defee. jikko ragaluma. jikkooy ragaluma. jikkooy tiituma. jikkooy tiituma fi ma ndax am nañ ay autorités yoo xam ne. ndax am nañ ay autorités yoo xam ne. ñu ngi ñuy sàmmal. ñu ngi ñuy sàmmal. ba duñ gis gis luñu ragal. ba gis luy gis luy jaar suñu digganteeg liñ bëgg def ñu def ko. ba duñu gis luy jaar ci suñu digganteeg liñ bëgg a def ñu def ko. ñu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla. sëriñ bi ne mu ngi leen di gërëm di leen ñaanal yàlla. yàlla yàlla dëgëral leen. yal na yàlla dëgëral leen yaara na yàlla dëgëral suñ gouvernement. yal na président. yal na yàlla dëgëral ci liggéeyam. ci liggéeyam. ci biir réew mi. ci biir réew mi. moom ak ñu koy jàppale ñëpp. moom ak ñu koy jàppale ñëpp. lu baax lañ bëgg pour réew mi. lu baax lañ bëgg pour réew mi. leen lu baax rek lañ bëgg. ñun réew mi. kese kese. kese kese nag. waaye utuñ dara pour suñ bopp. waaye utuñ dara pour suñ bopp. utuñ dara ñoo ko moom. utuñ dara ngir lii ñoo ko moom. ñun ñëpp. ñun ñëpp. xam nañ ne ay nit ñu fi nekk rek lañ. xam nañ ne ay nit ñu fi nekk rek lañ. yàlla teg na ñii ay ay responsabilité yàlla teg na ñii ñu nekk di ay responsabilité yàlla teg na ñii itam. yàlla teg na ñii itam. nga xam ne dañoo war a topp. ñooñu yàlla seen kanam rek. muy ñoo xam ne dañ leen a topp. ñun yàlla teg ci suñ kanam rek lañ. ñi yàlla teg ci suñ kanam war nañ leen a topp. ñi yàlla teg ci suñ kanam ñi jiite war nañ leen a topp. ngir yàlla. ngir yàlla. waaye toppuñ leen. waaye toppuñ leen. ngir bëgg ci ñoom. ngir bëgg ci ñoom. lu lu lu jaaduwul. lu jaaduwul. lu jaaduwul. lu jaaduwul. lu jaaduwul mooy. lu jaaduwul mooy. nga gis ne yow war ngaa am loo xam ne. nga gis ne yow war nga am loo xam ne. keneen waru koo am. keneen waru koo am. lu jaadu. lu jaadu. mooy ñun ñëpp a yem. ñun ñëpp a ñëpp a soxla li fi nekk. ñun ñëpp a soxla li fi nekk. ñun ñëpp a soxla yiw. ñun ñëpp a soxla yiw. te loolu. te loolu. ñi ñu ñi ñu jiitee suñu réew. ni ñu jiitee suñu réew. ñoo ko mën a def. ñoo ko mën a def. te ñu ngi ciy góorgóorlu seen kem kattan. te ñu ngi ciy góorgóorlu seen kem kattan. ñu leen di ñaanal ci loolu. ñu ngi leen di ñaanal ci loolu. yal na yàlla yokk leen ci ndimbal. yal na yàlla yokk leen ci ndimbal. ba ñuy Sénégal bu nekk fi mu bëgg Sénégal àgg fa. ba ba bu nekk fi bëgg Sénégal ak fa. ñu àgg fa ci jàmm. ñu àgg fa ci jàmm. ñu gis bu baax ñu ñu ñu ñu xam ne. sëriñ bi na ñu xam ne. jullit bu nekk responsable ci boppam. jullit bu nekk. responsabilité la ci boppam. responsable la ci moromu jullitam. responsable la ci moromu jullitam. responsable la ci réewam. responsable la ci réewam. responsable nag dafa war a taxawee. responsable nag dafa war a taxawee. taxawaay boo xam ne taxawaay bu mat la. taxawaay boo xam ne taxawaay bu mag la. bu mat la. bu mat sëkk la. boo xam ne ñëpp dañ ci gis seen bopp. boo xam ne. ñëpp danañ ci gis seen bopp. suñ jotaay bi tey. suñ jotaay bii ñu toog tey. alhamdulilah rabbil alamin. alhamdulilah rabbil alamin. itte yu bëri moo ñu ko may. itte yu bëri. moo ñu ko may. mooy ne. mooy ne. ay jullit lañ alhamdulilah yàlla ñu ko may. ay jullit lañ alhamdulilah yàlla ñu ko may. yàlla teg nañu yi moo ñu ko moo ñu ko may. yàlla teg nañu koor dañu mànk ko ci jàmm. moo ñu ko may. te koor jamono yë jamono yi àddina yëpp weeru koor a ci te jamono yi àddina yëpp. weeri koor ci kën weeru koor itam weeri koor itam am na benn guddi am na benn guddi moo gën weeru koor wi yëpp moo gën weeri koor wi yëpp ndax guddi la boo xam ne ndax guddi la boo xam ne juróom ñetti fukki at ak dara juróom ñetti fukki ak dara lay tekki ci dundu doomu aadama lay tekki ci dundu doomu aadama guddi googu guddi googu yàlla may na ci jaam yàlla may na ci jaam lu mu ci def ci lu baax rek lu ci def ci lu baax rek ba ba fajar ba fajar lépp yàlla daf koy jox ku liggéey juróom-ñetti fukki at. lépp yàlla daf ko koy bindal yoolab ku liggéey juróom-ñetti fukki at. ak dara ak dara. loolu ku ne xam na ne mbaaxu yàlla la. loolu ku ne xam na ne mbaaxu ak yàlla la. ku ko yàlla may nag. ku ko yàlla may nag. daf laa bëgg. daf laa bëgg. ndax noonu la yàlla bëggee xeetu yonent yàlla Muhammad. ndax noonu la yàlla bëggee. xeet ak yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. daf ko mu gën ci xeet yëpp. daf ko mu gën ci xeet yëpp. daf ko. Defko. ko def ko muy xeet woo xam ne muy xeet woo ne mooy xeetu alquran mooy xeeti alquran te alquran luy mat moo la gën a mat te alquran luy mat moo la gën a mat xam ngeen loolu yëpp ngir ngir mbaaxu yàlla la ci jullit ñi loolu yëpp ngir mbaaxu yàlla la ci jullit ñi yàlla ko ubbil jullit ñëpp yàlla ko ubbil jullit ñëpp demal jël rek affaire demal jël rek na jàmm bi demal jël rek affaire bi demal jël rek la boo góorgóorlu rek dem jël sawal boo góorgóorloo rek yow jàpp bi dem jël jot sa war la. yal nañu yàlla boole ci jaamam yooyu. yal nañu yàlla boole ci jaamam yooyu yaram. jaamam yu sell yooyu. jaamam yu sell yooyu. jaamam yu baax yooyu. jaamam yu baax yooyu. jaamam yooyu nga xam ne moom leen kaweeral boppam. jaamam yooyu nga xam ne moom bi moo leen kaweeral boppam. yal nañu yàlla boole ci jaam yooyu. yal nañu yàlla boole ci kuréeli jaam yooyu. te ñun ñëpp. te ñun ñëpp. war na ci ñun war na kenn ku nekk ci ñun. bu gisee loo xam ne baaxut pour Sénégal. bu gisee loo xam ne baaxut pour Sénégal. mu jéem cee góorgóorlu. mu jéem cee góorgóorlu. pour bu mu tasaaroo. pour bu mu tasaaroo. mu jéem cee góorgóorlu. mu jéem cee góorgóorlu. ci ñaan ci yàlla. di ci ñaan ci yàlla. yal nañu yàlla teggil luñ xamut. yal nañu yàlla teggul. teggil yal nañu yàlla teggil luñ xamut lii jëm si ci ñun. yal nañu yàlla dimbale. yal na ñu yàlla dimbale yaara bi. yal na yàlla fang yal na ñu yàlla soril. yal ñu yàlla soril. lépp loo xam ne daf ñuy indil lor. lépp loo xam ne daf ñuy indil loraange. lépp loo xam ne daf ñuy indil ñàkk déggoo. lépp loo xam ne daf ñuy indil ñàkk déggoo. lépp loo xam ne daf ñuy indil bañante. lépp loo xam ne daf ñuy indil bañante. yal nañu ci yàlla musal. yal nañu Sénégal. loolu xajul fii. boo gisee mbooloo mi daje fii tey ci jumaa yi. ci boo gisee mbooloo mi daje fii tey ci jumaa yi. ci julleekaay bi ci julleekaay bi. da ngay ñu baax lañ. da ngay gis ne nit ñu baax lañ. ñu bëgg lu baax. da ngay gis ne nit ñu lu baax a bëgg lu kawe. da gis ne nit ñi bëgg lu kawee fi dajee. ndax nañ ne yàlla moo koy maye. ndax xam nañ ne yàlla. moo koy maye te ñoom xam nañ ne yàlla moo koy maye. te ñoom xam nañ ne yàlla moo koy maye. ñoom ñëpp ñu daw ñu daw ñu dawal ci la leen yàlla digal. ñoom ñëpp ñu dawal jublu ñu ci li leen yàlla digal. bokk na ci bés bi ñu ko digal. bokk na ci bés ñu ko digal. dégg nga li imaam wax. dégg ngeen ñu bés bu kawe ci bés yi gën a kawe. mu ne bés bu kawe la ci bés yi gën a kawe. ndax bés bii dañuy tëj weeru koor. ndax bés bii la ñuy tëj weeri koor. bés bii la ñuy ubbi weeri aj. bés bii la ñuy ubbi weeri aj. kon bés bés bu kawe la bu barke la. kon bés bii bés bu kawe la bés bu barke la. bés bu xam ne jullit bu ko góorgóorlu. bés boo xam ne bii la jullit bu ko góorgóorlu. màngu ko comme ni ko yàlla waxee. màngu ko comme ni ko ko yàlla digalee. dëgg-dëgg dina gis ci boppam sotteeku. dëgg-dëgg. su boobaa dana gis ci boppam ak soppeeku. dana gis ne. dana gis ne. tànn lu baax moo gën. tànn lu baax moo gën ci nit. def lu baax moo gën. def lu baax moo gën. yéene lu baax moo gën. yéene lu baax moo gën. ñaan jàmm moo gën. ñaan jàmm moo gën. ñun ñëpp xam nañ loolu. ñun ñëpp xam nañ ne jàmm rek a ñu ji. noonu ñu ko xamee. noonu ñu ko xamee. ñu ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla maye. yàlla ñu ko yàlla may. ñu ngi ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla may yaa rabbi. yàlla ñu yàlla sàmmal Sénégal. yàlla ñu yàlla sàmmal Sénégal yaa rabbi. tey jotaay bi xaw naa wéet. sëriñ bi ne tey jotaay bi xaw naa wéet. ndax manqué ne imam Cheikh Cissé. ndax manqué na imam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé. manqué ne Cheikh Macky. manqué na Cheikh Mouhamadul Macky. manqué na ñu bëri ci kilifay dëkk bi Cheikh Hakibu. manqué na Cheikh Hakibu. ñoom ñëpp ay kilifa lañ ci dëkk bi. te ñoom ñëpp ay kilifa ci dëkk bi. ay wéttal lañ. ay wéttal lañ. daan ñu wéttali ci jotaay bi. daan ñu wéttali ci jotaay bi. buñ leen gisut. buñ leen gisut. li leen gàllankoor ba mënuñoo teew. li leen gàllankoor ba mënuñoo teew. ñu ñaan ci yàlla. ñu ngi ñaan ci yàlla. borom yërmande. yàlla mi nga xam ne mooy borom yërmande. yàlla mi nga xam ne mooy borom baax. yàlla mi nga xam ne mooy borom baax. yàlla mi nga xam ne mooy dimbal. yàlla mi nga xam ne mooy borom ndimbal. yàlla mi nga xam ne moo yëkkati ku feebar. yàlla mi nga xam ne ku feebar te du kure moo la yëkkati. yàlla leen yàlla yëkkati. yàlla leen yàlla yëkkati yaa rabbi. may leen kattan. may leen kattan. may leen ca waxtaane. may leen ca waxtaane. bañ mën a ñëw ci nit ñi nga xam ne. bañ mën a ñëw ci nit ñi nga xam ne. ñoom xam nañ ne nit ñi bëgg nañ leen. ñoom xam nañ ne nit ñi bëgg nañ leen. ngir yàlla. ngir yàlla. kon nag yàlla bu ñu yàlla xañ. kon yàlla bu ñu yàlla xañ di toog ak ñoom di toog ak ñoom di leen gis di leen gis ñu ñuy gis ñu ñuy gis ñuy waxtaan ñuy waxtaan ñuy jëriñu ci ñoom ñuy jëriñu ci ñoom di leen jëriñ di leen jëriñ loolu yëpp loolu yëpp ci loxo yàlla la nekk ci loxo yàlla la nekk yal na ko yàlla dëggal ci ñoom yal na ko yàlla dëggal ci ñoom yal na leen yàlla yëkkati ñoom ñëpp yal na leen yàlla yëkkati ñoom ñëpp fëgg seen bopp yëkkati li nekk ci seen yaram ba gàllankoor leen yëkkati li nekk ci seen yaram ba gàllankoor leen. ba mënuñoo ñëw ci jotaay bi. ba mënuñoo ñëw ci jotaay bi. ndax dëgg-dëgg taar lañ. ndax dëgg-dëgg ay jëmmi taar lañ. dëgg-dëgg ay xam-xam lañ. dëgg-dëgg ay jëmmi xam-xam lañ. ndax dëgg-dëgg diine lañ. dëgg-dëgg diine lañ. te yonent nee na. bi nee na sallallahu alayhi koo gis. képp koo gis. mu fàttali la yàlla. mu mu fàttali la kooku waliyu yàlla la. kooku waliw yàlla la. yow tamit waliw yàlla nga. tamit waliw yàlla mi fàttali yàlla ci yow mi fàttali ko jeex na. koor ci Sénégal. ñu منصور قال لي منصور سي سي تيواون قال لي منصور سي تيواون قال الشيخ منتقى قال لي الشيخ منتقى طوبى أمول الخلفاء وين خمن يجي السنغال أمول الخلفاء وين خمن يجي السنغال سانتا هواي سانتا هواي سانتا هواي dimbalante ak nit ñi rek la taxawaayu dimbalante ak nit ñi rek la ci lu leen di ci lu leen di jëriñ. ci seen diine. ci seen diine. jëriñ leen ci seen àddina. jëriñ leen ci seen àddina. loolu rek mooy taxawaay bi. loolu rek mooy taxawaay bi. utuñ ci kenn dara. utuñ ci kenn dara. utuñ ci kenn dara. ci yàlla rek la ñuy wut. ci yàlla rek la ñuy wut. bu ñu amee soxla. bu ñu amee soxla. bu ñu amee soxla. yàlla la ñuy tàllal loxo. yàlla la ñuy tàllal loxo. boo leen diisee soxla. boo leen diisee soxla. yàlla la ñuy tàllal seen loxo. yàlla la ñuy tàllal seen loxo. te yàlla nee na. te yàlla nee na. boo ma ñaanee ma may. foo ma ñaanee ma may leen. nit ñu bëree bëri. nit ñu bëree bëri. ku nekk am nga loo xam ne mooy sa métier moom nga xam. ku nekk am na loo xam ne mooy sa métier te moom nga xam. ñii ay gouverneur lañ. ñii ay gouverneur lañ. préfet lañ loolu lañ xam. ñii ay préfet lañ. mooy seen moom lañ xam mooy seen xam-xam. mooy seen xam-xam. ñii ay ingénieur lañ mooy seen xam-xam. ñii ay ingénieur lañ moom lañ xam mooy seen xam-xam. te ku ci nekk rek sa liggéey yéwénal nga ko. te ku ci nekk rek sa liggéey yéwénal nga ko. nit yàlla yooyu itam. nit yàlla yooyu itam. toroxlu ci kanam yàlla lañ xam. toroxlu ci kanam yàlla lañ am. lañ xam. lañ xam. xam nañ koy defee itam. xam nañ xam niñ koy defee itam. bon ñun ñëpp yàlla daf ñoo boole rek. bon ñun ñëpp yàlla daf ñoo boole rek. ku nekk li nga mën rek nga di ko dimbalee sa morom. ku nekk li nga mën rek nga di ko dimbalee sa morom. di ko dimbalee sa réew. nga di ko dimbalee sa réew. ndax doolee ko am. ndax doolee ko am. ndax tabax réew mi am. ndax tabax réew mi am. tabax réew mi am. ndax tabax réew mi am. dëgër. dëgër réew mu dëgër réew mu dëgër góor yu dëgër góor yu dëgër góor yu kawe jikko yu kawe jikko yu baax yu baax yu civilisé yu civilisé yu ak jëflante boo xam ne yu mën a jëflante ñoom boo xam ne jëflante bu rafet la jëflante bu lay doon jëflante bu kawe lay doon jëflante bu kawe lay doon loolu mooy diine loolooy diine waaye loolu itam mooy social waaye loolu itam mooy social nekk bëgg nga sa moroom bu bu réel la. ku nekk bëgg nga sa morom mu la. ku nekk bëgg nga jokkalanteeg sa morom. ku nekk bëgg nga jokkalanteeg sa morom. ci kaw teraanga. ci kaw teraanga. ci kaw yëg. ci kaw yëg. ci kaw fonk sa sa fonk. ci kaw fonk sa nawle. loolu yëpp yàllaa ko digle. loolu yëpp yàllaa ko digle. yal nañu ci yàlla dimbale ñu def ko. yal ci yàlla dimbale ñu def ko. bu baax a baax. sëriñ bi ne ñu ngi gërëm bu baax a baax. suñ sous-préfet. suñ suñ sous préfet préfet. suñ préfet. ak gouverneur bi. ak gouverneur bi. ñoom la ñu yàlla sédd ci kaw ñoom la ñu yàlla sédd ci kaw ñuy def seen kéem kattan tam pour sàmm Kaolack ñu leen ko dénkee. ñuy def seen kéem kattan ku mel ni benn mu ngi ne toog. ku mel ni Bengelloune. ku mel ni Bengelloune. ak ñoom kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk. ak ñoom kilifa yi nga xam ne ñoom la yàlla dénk. teralee leen teralee leen. teralee leen. jox leen. jox leen. ay responsabilité ay responsabilité ci kaw nit ñi. ci kaw nit ñi. bon mu ngi leen di yàlla dimbale. bon. ngi leen di ñaanal sëriñ bi ne mu ngi leen di ñaanal yàlla. yal na yàlla dimbale leen ci seen responsabilité yi. yal na yàlla dimbale leen ci seen responsabilité yi. bu leen ci gis seen bopp. bu leen ci gis seen bopp. jam yàlla bu yàlla sant rek laa. jaami yàlla bu yàlla sant rek laa. maa ngi ci maa ngi ciy jéem a góorgóorlu. sëriñ mu ne mu ngi ciy jéem a góorgóorlu. yàlla defal leen loolu. yàlla yàlla leen loolu yaa ak ñi élif Sénégal yëpp itam. ak ñi élif Sénégal yëpp itam. loolu lañ leen di ñaanal. loolu lañ leen di ñaanal. ñu ngi ñaanal suñu autorité yi. ñu ngi ñaanal suñu autorité yi. yàlla may leen loolu. yàlla may leen loolu. ñu ngi ñaanal itam. ñu ngi ñaanal itam. suñu sëriñ yi. suñu sëriñ yi. ñoom tamit yàlla yàlla gën leen a samp. ñoom it yàlla gën leen a samp. gën leen a dëgëral. gën leen a dëgëral. gën leen a may seen càkkutéef. gën leen a may seen càkkutéef. dara gën ko jafe dara gën ko jafe ci nit dara gën jafe ci nit. ñu ne la yaay xalifa. ñu ne la yaay xalifa. lu jafe la. lu jafe la. lu diis la. lu diis la. jox nit ñi ci yàlla. parce que da ngaa war a jox ñi ci yàlla. dimbalanteeg ñoom ngir yàlla. di dimbalanteeg ñoom ngir yàlla. xaajoo ci ñoom dara. xaajoo ci ñoom dara. ngërmande yàlla wàcc ngërmande yàlla wàcc ñeexal la ñeexal ñëpp itam ñeexal ñëpp itam wax nga ne ñu ngi fi waaw ñu ñu ñu mo ba tey muy muy xabaar bu neex rek mu ne imaam a ngi ci jotaay bi ak sëriñ Akibu ñu ne imaam Cheikh Tidiane Seydi Ali Cissé mu ngi ci jotaay bi ak Cheikh Akibu Ibrahim alhamdulilah alhamdulilah yal na yàlla yokk yal na yàlla yokk leen kattan. yal na yàlla yokk leen kattan. yokk leen mën-mën. yokk leen mën-mën. ba duñ ba duñ tàggoog nit ñi. ba duñ tàggoog nit ñi. nit ñi itam duñ tàggoog ñoom. nit ñi itam duñ tàggoog ñoom. yal na yàlla sàmmal ñu Sénégal. yal na yàlla sàmmal ñu Sénégal yaara bi. yal na yàlla sàmmal ku nekk ruq ba nga dëkkee yal ko yàlla sàmm. ku ci nekk ruq ba nga dëkkee. yal ko yàlla sàmm. ñun Medina lañ dëkk mooy ruq ñu dëkkee. ñun Medina lañ dëkk. mooy ruq biñ dëkkee. ñu ngi fi ñaan yàlla jàmm. ñu ngi fi ñaan yàlla jàmm. ñu ngi fi ñaan yàlla yiw. ñu ngi fi ñaan yàlla ak dooleeku. te dëgg-dëgg loolu ñu ngi ciy gis lu bëree bëri yàlla ñu koy may. te dëgg-dëgg loolu ñu ngi gis yokkute gu bëree bëri yàlla ñu koy may. Baye Cissé ngi nii taxawaayam ci dëkk bi. Baye Cissé ngi nii taxawaayam ci dëkk bi ku ne gis na ko. taxawaay bu kawe. muy taxawaay bu kawe. nit bu dëgër moo ko ñaan. loolu ku dëgër xol moo ko ñeme. ku am ay yaakaar yu dul jeex du moo ko ñeme. ku am ay yaakaar yu dul jeex du moo ko ñeme. kon ñu wax ne ñu lay ñaanal yàlla. kon Baye Ciss sëriñ bi ne mu lay ñaanal yàlla. te na xam ne ñun ñëpp ñu ngi kontaan ci yow ak yow. sëriñ bi na nga xam ne ñun ñëpp ñu ngi kontaan ci yow ànd ak yow. di la ñaanal yàlla. di la ñaanal yàlla it. ñaanal ñëpp. sëriñ bi ne mu ngi yi taw kenn. ku nekk foo mën fi nekk. ku nekk ak foo mën di nekk mu ngi lay ñaanal yàlla. mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla dimbale la. sëriñ bi ne mu ngi lay ñaanal yàlla yàlla dimbale la. yàlla sàmmal ñu Sénégal. amiin sëriñ bi ne mu ngi ñaan yàlla yàlla sàmm Sénégal yaara bi. yàlla ñu yàlla sàmmal Sénégal. yal na ñu yàlla sàmmal Sénégal. ñu xam ñu xam jàmm. ñu xam jàmm. ñu xam jàmm. ñu xam yiw. réew mu xam yiw lañ. ñu xam mbaax. ñu xam mbaax lañ. yalla ko fi yalla saxal. yal na ko fi yalla saxal tak Salama muy ñaanal Mauritanie. Sëriñ bi mu ngi ñaanal Mauritanie. mu ñaanal Gambie. ne mu ngi ñaanal Gambie. Niger. Niger. Nigeria. Nigeria. dëkk taalibe yëpp. dëkk taalibe yëpp. ak lu dëkk taalibe yi Soudan. Soudan. ci seen jafe-jafe yooyu. ci seen jafe-jafe yooyu. mu ngi ñaan yàlla yal na leen ci yàlla génne. mu ngi ñaan yàlla yal na leen ci yàlla génne. ñu delluwaat ci jàmm. ñu delluwaat ci jàmm safañ bàyyee ko. yal nañu ko jox ñu ñuy naan